def lan lan ngeen non ñun bi ñu bi ñu démb bi ñu jotee ndigal li li ñu bëggoon a def mooy dem jëflante ak ñoom ndax mbir mi il faut mu leer dañu doon dem pour jëflante ak ñoom ndax am na ñu joge woon dakaar sarse ñaari kaar ak ñu jóge Diourbel ñëwoon nañ démb nag ci guddi depuis minuit ba 4 heures de matin maa ngi jot ay téléphone ci autorités yi ñenn ci police ñenn ci gendarmerie ñenn ci autorités yi ndax xam ni sëriñ bi woote wut wi sëriñ Touba woote wut waaye lii ñu gis su fekkee bàyyiwuñ ko te kilifa yi taxawuñ ci ak autorités yi violence dana am ndax pas-pasu jàmbur kenn amul droit di ko laal ku tone sëñ Tuubaa ak li mu jiite ci àdduna ak soppe yi mu am yaakaar naa ni ko yàlla def ku mu neexul war nga mën a maanu ci moom ñenn ñi nag Tuubaa gi lañu dëkk xam nañ leen xam seen i kër xam fi ñu dëkk ñenn itam génn nañ Tuubaa yemale wuñ ko tam ci Tuubaa képp képp koo xam ne def na ko Tuubaa wax ko danañ la attaqué génnee la Tuubaa bu dee feneen da parce que ci rajo lañ nekk mooy daal yoon wi moom dana am beneen taxawaay boo xam ne ndax lu neex waay def ah bu sëriñ bi waxee bu sëriñ Mountakha waxee kenn du ko kenn du kenn du ko kenn du ko kenn du ko kenn du wax kenn du ko jëf loolu moom dafiy jóg heure bu bëgg-bëggu sëriñ bi taxawatee danañ ko jëf ñi nga xam ne nag dañuy attaqué yoon wi ak di attaqué waa ko sëñ Touba ak ñooñu sëñ na ñu xam ne danañ leen jaay suñu bakkan ñii nga gis ñu ne ci ginnaaw ñoo ci gën a néew ndax ku ci nekk dafa jiite am mbooloo am nañ nekk Kaolack ñu ñëw am na ñu nekk Dakar moom wax nañ leen ñu dellu dégg nga wax nañ tam li ñu war a wax police ak li ñu war a wax gendarmerie tey nag li ñu naroon danañ ko bàyyi. di wax nag ñi nga xam ne ndax dama dama dañu jaaxle ci mbir mi li ñu jaaxle mooy euh, ku ñu tudd sa baay nga jog taxaw kilifa yi di wane ni ay kilifa yi nguur lañ képp kuñ ci attaqué bu subaa police ak gendarmerie fees dell jàpp kooku yóbbu ci kaso bi te ñun ku attaqué Sëñ Tuubaa kenn du la wax dara kenn du la def dara dégg nga dañ koy gën a siiwal sax. réseaux sociaux yi di ko gën a siiwal te na ci yenn yoo xam ne sax bu duggee ci réseaux sociaux yi ñoom dañ koy filtrer lu jàll mais day mel ne mbirum sëñ Tuubaa moom ak ak njabootam luñ ci wax rek gars yi bëgg di ko contester léegi nag ñun ñoo jaay suñu bakkan bëgg a ñoo ñu jaay leen suñu bakkan du ñu def nag loo xam ne ñi ngi koy ñi ngi koy lancé appel ñëpp nag tàmbalee ko sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa dem naa fa fekk ko daalu tanzil bu yàgg li may wax sëñ koso doomam fekke na ko sëñ bi lu lu ko naqari la ñi nga xam dañuy wax sëñ Tuubaa luñ ko wërta wax ak ñi nga xam dañuy nekk ci dëkk bi di di njàngale meneen njàngale mu bokkut ak sëriñ bi ak di woo ci nit ñi ba nga xam ne fi mu toll nii dañu fi bëgg am doole mooy jënd fi ay kër def ay ay ay place ay ay magasin def ay centre commercial tabax fi seen i étage tabax fi seen kër ba pare sëñ Touba neexu leen duñ julee sax ci jumaa ji lii ñuy wax nag tey mooy dernière alerte bi waaw. mbir mi day bëgg ëpp day bëgg ëpp parce que man dama yàgg jàpp ni eh, état Sénégal moom moo koy seetaan parce que euh, euh, constitution euh, Sénégal dafa garantir à chaque citoyen sénégalais. ah euh, la liberté de culte kenn sañul ŋàññi nit wala nga xas ko ci gëm-gëmam wala ci ethnie bi mu bokk waaso bi mu bokk wala ci leneen ak leneen kenn sañu ko ah ba tax na ni mu ko waxee léegi boo bu ma tuddoon fii ma taxaw nii léegi président de la république wax ko lu ñaaw wala ma saaga ko bala maa egg sama kër danañ ma jàpp te moom yaakaar naa ni nekk na fekk euh, maanaam yoonu murit ñi fi jiit ñaata président fi nekk ah dem ah fay kenn déggatu leen Euh, te yoonu murid mi ngi continuer di wéy mbooloo mi Serigne Touba ñu bëgg moom la ñu àndal donc euh, ñun dootuñu nangu kenn kenn muy euh, nekk ci dëkk bi rawatina nekk ci dëkk bi di profito ci teraangay dëkk bi doo fay dara doo fay taxi doo fay douane doo fay dara di dajale sab xaalis boo amee sab xaalis di jël ay nit ñu wayef bopp leen recruter di leen financer ñi nga jëndal leen ay taxi ñi nga jëndal leen oto ngir ñu génn ci yoon wi samp fi daara yoo xam ne ay xale la ñuy jël de sept ans à dix huit ans dugal ci seen bopp mbañeel euh, ak ak xeeb Serigne Touba Serigne Touba kenn ñemewu ko woon tudd di wax lenn léegi ay xale yu ndaw ñoo koy tudd di tudd wayuuram di di daggi saaga te loolu lu ko waral mooy dañ leen ci former dès le jeune age former leen ci ba xamuñu ko dëgg Serigne Touba mais mag lu mu bon bon bon bon ñu leen jiite di leen di leen defloo muy Ahmed Lo moomu ak Khalil Lo ñoom lu ñuy bon bon ñemewuñoo tudd Serigne Touba mais xale yu ñu formé. ah ñi ngi fi dagal Serigne Touba Modou Diop mi xam na il y a cinq ans de cela ku ñu wax Serigne Samb boo déglu woon vidéo bi mu wax wax ko ci Soxna Jaara wax ko ci wax ko ci euh, Serigne Touba mais murid bu ko dégg te def jàkkaarloo moom te defoo ci moom léegi wax dëgg ci yow donc ñun waxuñu li ñu bëgg mooy euh, na dakk waaw amatul nag lu ñu ciy bañ parce que bu fekkee guerre civile lañ bëgg na guerre la éclaté on on s'en contrebalance ndax ñoom dañu nekk suñu kër suñu kër lañ nekk Touba du dëkk kër la suñu soxlaa ñu génn fi soxla wu ñu user de violence ndigal la ñuy jógee ak baat bu ñu demee nag bu ñu dee jaay doole nag bu fekkee ñoom ñoo nu ëpp doole loolu danañ ko xam mais mënatuñu leen may kenn kenn mu nekk ci dëkk bi te daara yi fi nekk yëpp recensé nañ leen wala yu ci bari recensé nañ leen te danañ danañ danañ ak jàkka yi fi ne yi ñu defee ay prédication di xas Sëriñ Tuubaa di dajji Pastef murit bu dee xam-xam ñoo leen ko ëppale fuuf amet loom yi ngeen di wax moo leen jiite maag maam moo ñoo bokkoon daara di jàngi jumaa ji xam-xam téere yu bari maag ñoom ñoo ko bokk jàngale lu mu xam fii la ko xamee kenn génnewul fii dem réew arab pour xam leneen lu dul xëy na lu xa ngay xam ak ay maxaarij wala spécialisé aussi dara mais du diine diine kenn ëppalewu ko fi xam-xam mais li ñuy wane ñoom ak reewnde la ak xamadi état nag moo ci war a jóg parce que moom euh, c'est le gardien euh, président de la République c'est le man bind naa ko lettre ànd ak sëñ am sa mu recevoir na ñu wax ko lii mën na sept ans de cela be kenn jógu ci waaw barki dem moo Ndiaye euh, ku ñu wax ku ñu wax Omar Diagne Cheikh Omar Diagne wax ji mu fi waxoon Serigne diffamation ma porté ko plainte ñu porté ko plainte auprès du procureur de la procureur bi lu mu ñu wax euh, ca kaw la la la ndigal jóge pour que ñu classé dossier bi ñu ne nag dañu sonn ci loolu parce que ay euh, loi ak yooyu yëpp peuple bi su moom souverain moom moom dëkk bi ay loi yooyu yëpp ay nitay toog ñaari nitay toog ñetti nit toog seet nu mu leen neexee ñu ñu ñu bind ko wane ni population bi moo ko wote te tel n'est pas le cas waaw majorité nag ñun ñooy majorité bu fekkee dañuy seet li bëgg nit li neex nit dañu war a seet li neex majorité bu fekkee démocratie li nekk constitution moo garanti nit bu ne lu ko neex mu gëm te loolu l'islam def ko santaane parce que l'islam boo seetee ñetti man manhaj am na ci ay ngër ñeenti ngër ah am na ci yooyu yëpp wuute ah loolu moo tax ñoom ñu nekk ci dëkk bi ñu leen di toleere ah ak di jéem a muñ mais nag dafa am mbir dafa am fu muy yem waaw dafa am fu mu yem bu ñu leen dee toléré nekk ak jaan boo xam ne bu yàlla sàkk sa néeg mi ngi lay wër lu mu la matte nga di ko toléré mais ñàkk fayda la du diina du lenn lu lu gën a farata lii amul képp koy wax sa intérêt bopp ngay wax te doo dégg kenn du fi wax ku dul sëriñ am sa nga fi dégg muy jóg di exposé wu ñu koy dagali saagaak di ko ñàkkal fay daag lu ne ñu di ko wax te pourtant il li muy défendre ñëpp la koy défendre kilifa diine yëpp war a jóg kenn waxu fi ci xutba wala discours lu gën a farata mbirum salafi si ak wahabi yoon yi xam ne dañu nekk ci dëkk bi di di di xas sëriñ si am na seen ñaari seet yoo xam ne daarul sunna ak euh, ak euh, daarul sunna ak euh, alxuraan ak sunna boo ci duggee des centaines de vidéos yoo xam ne ay xasida Sëriñ Tuubaa la ñu jël di ko croix di saaga lu bon la ñu di wax ci dëkk bi te loolu y a la y a la direction de euh, police de euh, cyber cybercriminalité mi ngi fi ñeneen a ngi fi ah loolu doyu leen ñu xam ñan la tëj si di wala ñu jàpp ñi nga xam ñooy administrateurs yi même suñu nekkee à l'étranger ah, mais mais interpellé ngi fi donc daf leen ko jarul bu fekkee nag stabilité Sénégal ñoru leen te ñun euh, xam na nañu xam ni ah bu fekkente ne ñoom dañu bëgg yàq ah li nga xam ne mooy ci lañ judd yaru ci gëm ko mu jaral leen ñu feebar ñun danañ jaral dee bañatuñu ci dara lañ ci bañut wallahi azim bañatuñ ci dara wax ji moom ñu nekk ci dëkk bi moom dana dakk te ñi nekk ci dëkk bi danañ recenser daara yi fi ne eh, xool njàngale ma ñuy jàngale bu fekkee dëppoowut ak njàngale majaalis yi nga xam ne moom lañ daan jàngale ci jumaa ji danañ tëj daara ya kenn du nekk ci dëkk bi dëkkub Serigne Touba di kër ne kenn du jàng xasida sama daara kenn du fa tudd Serigne Touba bu waxee nga ne Serigne Touba day bokkaale man sama doom ci daara Xaadim Mbàkke la nekkoon moom moo fi mooy c'est le précurseur moom moo fi njëkk indi wahhabisme sama doom ah fa la doon jàggee di muuroog lépp ah mais loolu baax la amul problème même bañ demee bàyyi wax bay ba koy tere mu jàng xasida wala muy muy giña Serigne Touba ci dëkkub Serigne Touba bi loolu laa gën leen nag du hospitalité ñàkk fayda la mouridisme léegi dafa mel ne dañoo ñàkk fayda ñu ngi woo taalibe yëpp nag leen xam ne ni combat bi du combat Fallou Fall du combat Modou Diop Diop bi du combat suñu am sa combat toute la communauté mouride bi nga ko la képp ku ko defete fu murid juróom mu murit nañ fa daje la ca war moom ñu def ko ko ñun moom Touba li ci war incha allahu taala dañ ko def nu mu gën a waree